وكان وودم وغراما فما عليك ملام حرم حلاوة نبي كريم مصطفى وإمام ذي جنبي وهمام نحن في الرسول جلوس أبي يقظة وإلا منام حرم حلاو نبي كريم مدلم وإمام بجنبه وهمام كيف الله تسك بدموع جفوني ويمين قبلي أن تراك سجام حرم حلاو نبي كريم مرتضى وإمام ذي جنبه وهمام كيف لا تذهل العقول وتفنى أنفس العاشقين ويا كرام حرم حلاوة نبي كريم محمد الأمين وإمام بجنبه جنبه رسول الإله إني محب لك والله شايق مستهام حرم حلاو نبي كريم وإمام بجنبه وهمام يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام حرم حلاو نبي كريم مجلم وإمام بجنبه وال يا رسول الإله شوقي عظيم زيد والغرام فيك غرام حرم على نبي كريم منتقى وإمام بجنبه رسول الإله جئتك أسعى قادتني ذنوب عظام حرم خلاه نبي كريم مدلم وإمام بجنبه والهمام رسول الإلهي إني نزيل ونزيل الكرام ليس يطعم حرم حلاوة نبي كريم مدلم وإمام بجبه أنتم مقصدي لفقري ومنكم يرف الجود والوفاء همام حرم خلوا نبي كريم ودلم وإمام بجنبه وهمام ولكم حرمة وجاه عظيم وفاء ورفعة لا ترام حرم حلاو نبي كريم مدلم وإمام في جنبه وهمام السراء أغلو كل السماء سجد الكل إذ رأوك وقاموا حرم حلاوة نبي كريم مدلم وإمام في جنبه لي سالاتي فسلوا كل مقتد وأنت الإمام حرم حلاوة نبي كريم مجلم وإمام بجنبه والهمام يا نجي الإلهي في حضرة القمر سكريم هناك يقام حرم حلاوة نبي كريم مدلم وإمام بجنبه وهمام نور العيون أنت الأماني أنت روح القلوب أنت الهمام حرم حلاوة نبي كريم مدلم وإمام بجنبه وهمام يا سيد النبي إن بحر سبح الكل في ناداك وعام حرم حلاوة نبي كريم مدلم وإمام بجنبه أنت للكل أول في المعالي وكذا أنت للجميع ختام حرم حلاو نبي كريم محمد الأمين وإمام في جنبه وهمام سهرت كالبدور نورا وحسنا في سماء العلا وأنت تمام حرم حلاو نبي كريم مصطفى وإمام في جنبه تبادت لناك عقد نفيس راق حسنا وأنت أنت نظام حرم حلا نبي كريم مجلم وإمام بيده وهمام نبي الهدى مع نكت تطلع عجزت أن تنالها الأفهام حرم حلاوة نبي كريم مصطفى وإمام في جنبه وهمام كيف لا يرتجي ابن مسعود عفوا ولا منك حرمة وذمام حرم حلا ونبي مصطفى وإمام بجنبه والهمام يمدح المدح كل يوم بوصف فيك يا من به يوزان الكلام حرم حلاوة نبيه كريم أحمد الأمين وإمام بجنبه وهمام فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من به يوزن الكلام يا من به يوزن الكلام يا إلى السماء سل عليه كل ما دام لزمن دوام حرم حلو آه. نبيه كريم مصطفى وإمام بجنبه وأمام وعلى علي أجل للبرايا على صحبي الجميع سلام حرم آه. على نبيه كريم مصطفى وإمام بجنبه وهمام وسليا يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم وصلي يا إلهي وجزيا عبد الحكيم مالكنا أن محمد مختار في القدم صلي يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمد المختار في القدم موضعنا وصلي يا هاشم ملكنا أن محمدنا مغتير في الخدم من بعد ما قد خلا واو يقال لها بدرا سيد الأمم موضوعي وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أنا محمد سميه محمدا أمرتني أن يكيد ما إن فتحتني مولانا وسليني لا إله وجزينا الحجم العار في الحيتم قولي أحيظ له من شر في حسد بالواحد الصمد موسوف بالقدم مولانا وأصلي يميا إلهي وجزي يا أبدا مدينة أنا محمد مختار في القيام شن دابة قد ناطقت بحمل خير عباد الله كلهم مولانا أخضرت الارض والاشجار قد حملت فسمي العمعاء ما الفتح والرفم وصلي يا بچ مدینہ آنا محمد مدینہ مختار في القدم وللنساء ذينر رحمن حمل الذكور ذلك العمائك إكراما لمحترم مولانا وصلي يا إلهي وجزيا عبد الحاج مالكنا نعم. أنا محمدنا محتار في العقيده والبقاء ادبا حمل بخير الورى المختار بالقدم مولانا وصلي يا الهي وجزي يا نعم الحجم مالكنا محمد مختار في القدم جاب الهدى ثم باء حمل بخير الورى مختار بالقدم مولانا وسلم يا إلهي وجزينا عبد الحج مالكنا آه. زالت بشيرها حتى أنارنا وحشام لتهمي جزيا أبدا تكتل آه. مكرم محمد مختار في لقيدة طلوعه وطلوع المشترق ترنا يا سعد مقتبسين من نوره العمام مولانا وصلي يا إلهي وجزينا سيد الحاج مالكنا أنا محمد مختار في القدم الذي يأتي النساء رأت ناح طير النفا ما غل من جزم مولانا صل علي صلاة ربي كاملة تنع إعاطتي علم الله يا الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي وصل الله واجبر يا ربي يا الله يا الله رحمن يا رحيم يا ملك القدوس يا مؤمن السلام يا الله يا متكبر يا جبار خالق يا مهيمن البارئ غفار يا الله عزيز قهار يا والي المصور يا, يا وهاب رزاق يا فتاح يا الله حليم يا قابض الباسط يا حكم المعيذ يا خافض الرافع يا الله مذل يا عدل يا سميع واسع يا بصير باعث يا لطيف يا الله رب ربي مقدم مغني يا مؤخر يا غني يا الله يا خبير يا الله متين يا واجد الولي ربي يا حميد يا الله يا علي يا الله حليم يا حق يا وكيل ماجد يا غفور يا حي يا قيوم يا الله شكور جامع يا مجيد ربي يا كبير يا مخفت العظيم يا الله عيد المعيد المبدي وصمد المحيي المميت رؤوف البر يا الله تواب يا متعالي الواحد الاحد المانع يا ضار يا نافع يا الله مالك الملك رب ذا الجلال والإكرام الشهيد البديع الهادي الله يا نور منتقم القادر مقتدر المجيب يا الله يا ودود يا الله يا أول الآخر الكريم الظاهر يا رقيب باطن يا حسيب يا الله مقيت يا الله يا جليل رب ربي ويا حفيظ يا الله ويا حكيم يا الله عفو يا وارث الباقي رشيد ويا صبور يا ربنا يا الله يا الله بسر هذه الأسامي صلينا على سيدنا الحامد المحمود يا الله الفاتح المخلق خاتم ما سبق مصر المكلم خير خير الخلق الله بسر ياد الأسامي صلينا على سيدنا الحامد المحمود الله الفاتح المخلق الخاتم بما سبق مصر المكلم خير الخلق الله الناصر الحق بالحق الجلي وإلى صراطك المستقيم الهادي الله ثم على الآل حق قدري قدرا مقداري لك العظيم يا الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علوا ربي الله عبد ذليل فخير خاشع وجيل ذو جزاء عازب يا الله يا الله إليك مد اليد رجاء مغفرة هب لي مسامحة يا الله يا الله لما وجه البحر فور الذنب يا إنني ربي خيوط الخلق يا الله وما السفينة ترجى غير رحمتك العظمى العميمة كل الخلق يا الله نشكو إلى الله يا جل ليس يرفعها سواك يا ربنا يا الله يا الله هل من مزيل بما قد كان يريد رب العباد عليهم ربي الله ونافذ حاكم هنا إرادته كما يشاء وجل الله يا الله وسامعا والدينا والشيوخ ومن قد ولدوا وذوي الإسلام الله صلي صلاة بيا بيا أبدا جميع أعوالي والأفات يا الله صلي صلاة بيا تقضي لنا أبدا جميع حاجاتنا يا الله يا الله صلي صلاة بيا ربي تطهرنا من جملة سيئات ربي يا الله صلي صلاة بيا ربي ترفعنا على من الدرجات ربي الله صلي صلاة يا رب تبلغنا أجل أقصى من الغاية يا الله يا الله يا ربي في الخيرات جملتها عند الممات وبعد الفوت يا الله بلغ إلى شعبي آل أمانتنا صلاتنا معها تسليم يا الله صل وسلم على الهادي صميم كما ترضى ويرضى يا رحمن يا الله صل وسلم على نور المحيط على كل المكون كل الخلق الله صل على رحمة الدارين سيدنا روح الوجود وسر ذاتي الله على المخطب واسجد واقترب كراما صلي وسلم سلاما ربي الله صلي على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله تلك الأمانة تكفي من تكون له مبلغا يا من إسهال يا الله لا تحرمن إلهي اليوم رؤيته فلا يخيبن من يرجوك يا الله من لم يكن يلقاه غدا ينال الله هذا القصير أتى للجبر الله وقل لنا ربي في كل الأمور فمن يكن كذلك يلقى اليسر يا الله وكلنا ربي في كل الأمور فمن يكن كذلك يلقى اليسر يا الله وكلنا ربي في كل الأمور فمن يكن كذلك يلقى اليسر يا الله وكل صلاة بها ربي تعللنا بحوله ربنا يا الله يا الله الله صل صلاة وتسليما زرع عطارا على الحبيب وآل الحب يا الله صل على البدر ما حمى الحجيج إلى زيارة الأرض يا رحمن يا الله واجعل إلهي يا ربي قصيدتنا وسيلة للمنى يا الله يا الله نعوذ بالله من خوف الأنام ومن أمين رضا عن النفس أم من رزقي الله ورضني بقضاء ربي مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله الله موزعا شكر ما أوليتني نعم جل ثناؤك يا رحمن يا الله لا نحصين ثناء عليك أنت كما ربي على النفس قد أثنيت يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نصب من جهة الدين أو في الدين يا الله فوز عني شكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن يا الله لا نحصين ثناء عليك أنت كما ربي على النفس قد أثنيت يا الله فاغفر لنا لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الطين أو في الدين يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الدين أو في الدين يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الطين أو في الدين يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب في جهة الطين أو في الدين يا الله صل على ساجد قبل الورى فعلى بسبعمائة عام ربي الله صل على ساجد قبل الورى فعلى بسبعمائة عام ربي الله يا الله عن نجزيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله يا الله الذي لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله يا الله عن نجزيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله يا الله الذي لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه الله يا الله عن نجيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله يا الله عن نزيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله بلغ له كل مامول مرقيه اعلى مراتبه أهل الله يا الله يا الله عن لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله ووفق أهله بمحض جودك للقبول يا ربنا يا الله يا الله يا الله عن لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله وقوي ينروعه على إفاضة أنوار على صحبه يا الله يا الله يا الله أنزيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله ووفقا أهله بمحض جودك للقبول يا ربنا يا الله يا الله يا الله أنزيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله الله وما يفيد عليه من معارفه ومن مواهبه يا الله يا الله يا الله نزيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله مما يفيض عليه من معارفه من مواهبه يا الله يا الله يا الله نزيا كل شيء شيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله مما يفيض عليه من معارفه ومن مواهبه يا الله يا الله مما يفيد عليه من معارفه من مواهبه يا الله يا الله مما يفيض عليه من معارفه من مواهبه يا الله يا الله يا الله يفيض علي من معارفه من مواهبه يا الله يا الله واغفر له ولكل المسلمين في هذا الطريق أمتنا ربي الله مما يفيد عليه من معارفه من مواهبه يا الله يا الله بجاي طاع عليه صل ثم على آل وصحب وسلم ربي يا الله مما يفيض عليه من معارفه من مواهبه يا الله يا الله جل جلالك يا من عز عزته خصصت نفسك بالعلياء يا الله جل جلالك يا من عز عزته خصصت نفسك بالعلياء يا الله جل جلالك يا من عز عزته خصصت نفسك بالعلياء يا الله جل جلالك يا من عز عزته خصصت نفسك بالعلياء الله جل جلالك يا من عز عزته خصصت نفسك بالعلياء الله جل جلالك يا من عز عزته خصصت نفسك بالعلياء الله يا كرام الكرامة يا أرحم الرحمن يا لطف اللطف يا برد احراري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطف اللطف يا برد أعراري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطف اللطفاء يا برأ birthday, you were. لكن كانوا أحيار وأحرار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطف اللطفاء يا برد أحراري عبدا جاء يسأل يا مانعا عن سؤول سار أحراري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطاف لطفاء يا برد حراري يا الله يا ربنا غفر زلتنا يا ديا ذا ضلال حائرا ساري يا أكرم القربان يا العمر رحمة يا لطف لطف يا برد حراري إني أصبت بداء الله الحبيب له سوى الذي كل يوم شأنه جاري يا أكرم القربى يا أرحم الرحمن يا لطف لطف يا بنا أرائي أدناني وأدنفني وعجل إغاثتنا يا خالق الباري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطف لطف يا برد أحرار ناري إني وإن كنت أثوابي مدنسة بماء عفوك أرجو غسل أقداري يا أكرم الكرماء يا أرحم الراحمين غفرنا يا لطافا لطفا يا برا عراري ورحمة الله كل الخلق قد وسعت من فاجر ومطيع زائد باري آه، صفات الله كل الخلق قد من بالهاجير ومطيع زايد بعد غفورا كل أوزار لو كان بابك لا يأتي ذو إذب فما دعيت غفورا كل أوزان خاطبت ربي خطابا لا يليق بنا فاغفر لعبد من الآثام حيا خاطبت ربي خطابا لا يليق بنا فاغفر لعبد من الأعظم حيا حيا لي وفي كتابك ربي إنما إنما صدقات ربي للفقراء من دون إنكار خاطبت ربي قطار لا يليق بذا فاغفر لأبد بلا عذاب حيا حياري إني فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير أوطاري إني فقير ومسكين بالله ومنكسر ما أتاج غيرك في تيسير أوطاري أوطاري إني فقير ومسكين بالله ومنكسر ما أحتاج غيرك في تيسير أوطاني إني فقير ومسكين ومنكسر واحتاج غيرك في تيسير أوطاري أوطاري إني فقير واو ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير أوطاري إني فقير واو ومسكين بالله ومر كثير وحتاج غيرك في تيسير أوطاري أوطاري أنت ولي في دنيا وضراتك آه. توفني مسلماً في رهط أبراري إني فقير ومسكين والله ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير أوطاري أوطاري هبلي إلهي يا ربي توبة كاملة وستر خطاياي ربي أي أي أستاري هبلي إلهي يا ربي توبة كاملة غربل وستر خطاياي ربي أي أستار وستر خطاياي وستر خطاياي وستر خطاياي ربي أي أستاري وستر خطاياي وستر خطايا وستر خطاياي ربي هيا أستار أتاري والصبر عن شهوات النفس ثم على مصائب الرب ربنا في هذه الدار وستر خطايا وستر خطايا, وستر خطايا ربي أي ستاري وصبر في نعمي لم أحصي عدتك وشكر يا ربي إياني كإحصاني وستر خطايا وستر خطايا وستر خطايا ربي أي أستار وليس برك مخصوصا بمن أسنت حالته تبتينا من قصد أبرار وستر خطايا وستر نحمدك اللهم ذا النعماء يا باعطيت اليدين بالعطاء ودافع الكروب والخطوب ما مبني أن لنا وساتر العيوب نحمدك اللهم ذا النعمائي يا باسط اليدين بالعطاء ودافع القروب والقطوب أنا لنا وساتر العيوب مما بي أنعمت من آلائي تفضلا بدون ما استثناء الحمد لله الحمد لله ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم شيخنا سيدي أحمد بن محمد بن سالم التيجاني وعن سائر خلفائه عليهم أجمعين سرين Mansour ما لي نيو دي لزيار دي زيارة لف رك جو تد جي دي سرين شاح أحمد تيجان سي محمد المنصور دي نيو دي زيار سرين بابا كر سي سي سي واي جل سنو زيار جي تل تيه كي نغا خمنتني مو في تيو دي دوغي تو ليرو شيخ الحاج عمر الفوتي di njabootu Cerno Habib Taal di njabootu Cerno Muntaga Taal bu Luga tabaarakallaahu moom ak mbokkam yu tedd yi fi teew nuy kilifa yi fi daje yépp teew ci jumaa ji te ñoo xam leen xam cër bi yàlla dogal ci ñoom nuyu mbokki taalibe yi fi daje nuyu mbokki jullit yi fi daje dellu ndokkeel la ci sa guddik maam gi mu sos sosal ko ku tedd sosal ko ku rëy ku màgg مدي يننتبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله جو نيو زيار كي سين جم يو تدي كيغا خامنتيني موي بروم حضره بي دي سيدي ابو بكر سي محمد المنصور خليفه جنرال دي تيجان nuyuwaale rakkam yépp nag sëriñ Maodo Abdul Aziz sëriñ Babacar ci Abdou mboolem banqaas yi séq xadara bii nu teew li aju ci sunu njabootu turandoo nga jiitu ci kanam jiitu ci kanamu xadara bi jabootu cheikh seydi mouhamadul moustapha yépp nuy itam njabootu sunu sëriñ di cheikh mouhamadul mansour boroom daara yi nuyu njabootu sunu sëriñ di cheikh seydi ahmed tidiane si al maktoum tabarakallahu njabootam yépp ñu di ca tudd Serigne Mansour al Maktoum ca France nuyu itam njabootu Seydi Abdul Aziz al Amin di ca tudd Serigne Babacar Sy mi ngeen nu booleel nuyu waale itam njabootu Serigne Papa Malick waaye njabootu Baye Sidi Ahmed njabootu Sëriñ Pap Malik radiyallahu anhu ñu ngi àndandoog nun ci lii teew nañu ko daan defe naka jekk ci seen barabu maam bële bu ngeen ñëwee ba ziyaar nuyoonte ak ñoom xool leen seen bëtu ñeewant tabarakallahu ñu ngi fi teew soxna Fatima soxna Safiya ak seeni mbokk yi nu àndal ñu wax la rekk lu mënul ñàkk ci programme bi nga xamante ni boobu ak léegi ñu door ko ñu ngi ko ànd ak koskaas yi nga xamante ni dafa sosu woon ci circonstance yu xaw a doy ci réew mi kilifa yi rafet lu mu sax fi ñu àndandoo ko alxaaji Ousmane maam Ousmane Samb ak mboolem bànqaas yi mu ëmb tabarakallahu xalifa bi itam joxe ndigal ci fii ñu ne li fi jaadu ci doxalin nañu taxaw di ko doxal ndax institution la te institution warul taxaw ñu wax la itam bi xalifa bi tànne li mu tànn ci tem daf nu yebal man ak sëriñ Habib nu dem seeti sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz bi nu dikkee mu xool tem yi gis libaleewu tem yépp ñu ni ko sëriñ bi moo wax ni nañu ñëw ci yow nga tànn benn boo xamante ni mooy wéy nekk mawduu gàmmu gi mu tànn mawdu boobu mu jël nga xamante ni xadis la bu yonent bi di wax ni innama bu'istu li utammima makarim al axlaq dañu ma yónni rekk ngir ma ñëw mottali jikko cang yi mu ni kon boobu nañu ko jël yónnee ko lajna al thaqafiya ñoom it ci seeni banqaas ñu gëstu ca génn ci ay sous-thèmes pour jëlaat waxtaane mbiri jikko ni ko yonent bi digle nga xamante ni dafa wax ni jamii al qawaid allati tuhammil مراعاة المرء لها على فعل الخير هو هي الأخلاق mboolem teg-teg yi règle yi comportement yi mboolem melokaan yi nga xamante ni bu ci ne dafa jëmm ci jëmmi yàlla subhanahu wa taala namuzajan li li wajhi subhanahu wa taala moom la wax ni yàlla teg na ca ñetti téeméeri melo ak juróom benn fukk yoo xamante ni ñoo dajaloo nekk makaarimul axlaq mu ni te melo yooyu benn rekk bu ca jullit góorgóorloo ba am ca benn benn booba du ko bàyyi ba dugal ko aljanna melo yu rafet yooyu melo yu jaadu yooyu melo yu sell yooyu melo yu tedd yooyu benn bu ci ne melokaanu yàlla la te benn lañ la ca teg kon bu jullit góorgóorloo ba dépassé benn ba dem ci ñaar di boroom ngëneel su góor góorloo ba dépassé ñaar ya dem ci fukk di boroom ngëneel su ko dépassé ba dajale lépp bu boobaan ak ñu mën koo natt ci mat ga yell pour doomu aadama melokaan yooyu nag moom la xalifa bi wax ni nañ ko fàttaliwaat nit ñi wan leen ni mu ngi fi ba léegi wan leen niit nañu ciy nattu wan leen niit nañu ciy cibb lu ñu bëgg meloo ko walla ñu natt ca seeni jëf walla ñu doxal ca seeni doxalin loolu rekk mooy falsafa al axlaaqiya bi nga xamante ni yonente bee ko teg ci yàlla wan gum ko wan melokaan bu ne mu di ko jéem a fexe melo yar ci ay njabootam nitu yàlla yi ci foofa lañu ñu ëpplante kenn ku ci nekk am ca prix d'excellence mu jox la nga nekk al insaanul kaamil yenent bi mooy ka ca jiitu loolu nag tabaarakallah mu taamu nu waxtaane ko du nu guddal sunu kàddu lu dul xanaa rekk wax la ni mbokki taalibe yi kenn ku nekk loo war a def mu jëm ci lu rafetal gàmmu gi rekk def ko ko loo war doxal mu jëm ci lu rafetal gàmmu gi rekk def ko ko loo am yéene nga ko dugal ko ci liggéeyu Seydil Hadj bi nga xamante ni wooteem la woon te woote ba dafa waxoon ni bëgg naa bu ma koy defeti atam mu dajale mbokki taalibe yi ñu dajaloo mu mel ni jataay ba dafa xaw a yaraax mu ni fas naa yéene ëllëg bu ñu ca yëggatee fii ba buur saane ca jolof ku ko mëna teewe teewe ko ndax benn mag bu amul lu dul benn dëgg taamu di ko waxtaan ci benn bis ci genn guddi ci weer ci at bu sañoon ku mu am nga ñëw fekke ko wax boobu sëñ Abdul Aziz moo ko nettali wax ni loola la ca daan wax ni bu sañoon kuy taalibe bu gàmmu jotee soo mënee ak boo mënul nga ñëw ndax ñëwin façon la da nga ñëw teew waaye mënuloo ñëw nga ñëw teewal dama koy wax ay mbokki taalibe yu nekk ci itali ñu ñëw tàggoo ci semaine bii tàggoo ni dañuy ñibbi man leen waaw yéen xanaa xamu leen ni gàmmu Seydi Hadj ñu ngi koy tëgg ci biir weer wi ci biir semaine bi ma ni leen bu ngeen dee jëlati vacances dee leen laajte fu gàmmu gi toll ngeen koy natt ca foofa ndax ku sañoon ba wax ni buma ma kuma ku kuma bokkal pas-pas kuma bokkal yonent bi buma ma koy wax nga ñëw fekkee gi ko ñu bëree bëri di jéem ak góorgóorlu pour ñëw fekke si gàmmu gi fii yow ngay ñëw di taggo naan damay wan gannaaw gàmmu gi ko kooku moom kenn du ko nangul taalibe ndax bu jotee rek ku ko mën rek rawatina nak ñun njaboot gi nga xamante ni yàlla dogal Seydi Hadj Malick jur ñu ci geño ba pare jur ñu ci pas-pas waaw pas-pas boobu mënu bokk jur nag moo exiger bu jotee rek ñu ñëw teew teew wane ni marqué sa présence te ñoom seen teewaay yi kat dañ koy jël léegi di ko def ci liste di wane ni diwteewoon na diwteewoon na diwteewoon na boo ko nattee ci li mu wax ci xadaratul juma sunu sëriñ sayidna cheikh radiallahu an mu ne xadaratul juma taalibe bu ko mën di fekke na koy fekke ndax benn yoon la ci semaine tàkkusaanu ajjuma la ca yàllay séddale kenn mënul natt tolluwaayam mu ni waaye bu sañoon fu taalibe nekk te mën koy fekke rek nga ñëw fekke ko soo amee ngant te muy ngant lu jar ngant suñu ñëwee teew ca géew ba yonent bi day ñëw fekke marqué présence am bu ñu tàmbalee auzu billahi min asheytaani rajim mu ñëw teew ñu bëri sax wax nañ ni ci jataay yi gën a am solo ci tariqa bi la bokk bu ñëwee teew ñu ràppel mu làcce diw ma fa nekkul ñu ni ah diw mooma dafa am ngànt beneen ajjuma bay ñëw bu dikkee teew dana la làccewaat muy ñaari ajjuma beneen ajjuma ba ca topp bu ñëwee teew làccewaat la ñu ni danga am ngànt dootu la làcce loolu tax ñuy exiger ci taalibe ñaari ajjuma yoo toog ñetteel ba danga dem boo toogee ñaari ajjuma demoo fekki ji xadra bi bu ñetteel baa demal nga teew ndax taalibe bu yeggee ci yonent bi di ko laajte fi barab war naa xam ni moom ah seeni borom mboole nañ ko ca loolu nag mooy li nga xamante ni moom la ñuy fàttali rek mbokki taalibe yi fi teew di leen wax ni bu jotatee te yàlla dogal mën-mën na ku nekk ñëw teew ñëw rek fekke boroom dëgg gi di ko wax ci guddi gi te yéen a ko fi teewal ñuy ñaan nag yàlla na leen yàlla gën a yokk dëgëral yàlla taxawu leen te jàppale leen gunge leen ak ndamam wax la ni itam mbokk taalibe yu bari def nañu lu ne jëmale ko ci lu rafetal guddi gi waaye nag dama ni woon bu ma dikkee ba ci seen kanam ma wax leen ñett ba ñeent yu ko jenkonteel laata muy yegsi ak taxawaay yu ñu ca def muy taxawaay yu am solo tàmmalee ko ci barab bii nu nekk wax dëgg yàlla mbokki taalibe yu ànd ak nun jàpp ci ba lépp lu mën a yéwénal barab bi rek def nañ ko tàmmalee ko ci wuti rajo yu baax te déggoon naa ci sunu wayjur wa Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour mu ni gàmm ku bëgg gàmmu neex nee wutal ko rajo yu baax nee bu rajo yu baaxee nga ëf mu dem ba fii ba ajaja gàmm ga neex la <laughs> mu ni ak mu ni ak làmp yu leer làmp bu leeree day rafetal bâche mu ni nag ak reer yu neex <laughs> tabarakallahu mu wax loolu ni kon nag nañu ko bàyyi xel El Hadj Ablaye Ndiaye ngalgu sëriñ bi mënuñoo jàll te waxuñu la taxawaay bi mu def fii fii li fi nekkoon ci ay armoire yuy génne ngelaw lu sedd bariwul woon bi ñu jubee gàmm moom ak sëriñ Abdul Aziz Ndiaye ñoo ñëw wut ko ca Ndakaaru def ko fi ba defaale ko ci kaw ni daal li mu bëgg sax mooy désormais euh, bu ñu ñaanee sëriñ bi mu joxe ci ndigal mu ñëw lu mu fi gis loo xamante ni lu su a defar la wala lu ñu defaroon te mu yàqu walla lu ñu fi war a def la buñ ko ko waxee mu def ko ngir cofeelam ci sunuy wéyjur waaye cofeelam ci borom barab bi di cheikhul xalifa sëriñ Abdul Aziz Njaay rajo yi ngeen di dégg moo ko dem wut ñëw indi ko teg tabarakallahu boole ca nag wut ay gétti nag indi ko ci xadara bi di ko séddale mbokki taalibe yi ngir seenu gàmm yéwén rawatina njabootu Seydi Haj Malick mu ne ci pencu Seydi Haj rek yóbbu na fa ay nag yu baree bare pour melal cofeelam rawatina cofeelu maamam aali ma jigéen rawatina cofeelu baayam alxaaji aali njaay te tabaarakallaahu xam nañ bu baax a baax ñoom li leen boole ak yow ca wayjur wa cheikh seydi mouhamadul moustapha ñu ñaan yàlla na leen yàlla gën a yokk te sampal leen sampu teranga esplanade bii moo jël pasteefu karale ko ba mel na ni sax ku ne sawar ngaa dal ci biti boole ci ak defaraat mur bi ndax mur bi daf ci bëri loo xamante ni dañu doon toog rek mu daanu mu ñëw ñaan ndigal ci nañu ko defaraat lépp boolewu ca kenn moo dem wutal ko boppam te damay wax nag lu war ñëpp bu ko kenn defalee ñëpp ñëpp ko war a sant te xam nañ ñi Cheikhul xalifa ñëpp yéene nañ ko seen terang ñooñu nag ñu wax la ni la guddi gi bu ngeen waxee seen maam yu tedd yi ñu dogal leen dog bu yaatoo yaatu ci lu yéwénal seeni mbir lu leen dolli lu yokk seen liggéey lu leen sàmm sàmm seen njaboot lu leen musal muccal seen njaboot tabaarakallahu loolu loolu rekk lañ ca dabu رواتنا سنو نياري تلفزيون يدي الحاج مختار جاي المالكية الحاج مام عمر جاي بسنو بجن سعنا خدي اك بج تونتو منصور جاي يونيو دال امنا يتم نيانين خمنا بنيو دمي بنغ دف مساج بمو جيخ نيو تدالي لنيانت نيغا خمنتني بنيو tàmbali ak a door jot ndigalu kilifa gi ñëw nañu àndandoo ko ak organisation bi ba mu rafet yéwén ñu sàkku ci yéen it ngeen ñaanal leen ñoom it yal na leen yàlla gën a dolli ah sëriñ bi bëgguma guddal te sañu nu ngeen teew ñuy yëkkati sunu kàddu mu di leen tiim bu dul seen ndigal duñu ko sañ ñu yemale ko foofu ci suñu bàyyi yal na yàlla yeesal yërmandeem suñu bàyyi Pape moo ko daan jiite yal na yàlla yeesal yërmandeem ci sama ndigalu papa Seydi Ahmed Tijani al Maktoum yal na yàlla yeesal seen yërmande ñoom ñëpp fa tabarakallahu sama papa su wax ne ki nekk ci bopp délégation bi mu di ko présenté mooy doomam di Seydi Alhaji Malick Sy ibnu Cheikh Alhaji Ahmed Tijani Sy al Maktoum moo nekk ci bopp délégation bi ànd ak jarbaatam doomu suñu jigéen soxna Ndey Astu Si bu suñu bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum muy Cheikh Ahmed Tidiane yi ba mu ngi ni toog tabaarakallah ci wetu maamam ànd ak it suñu doomu bàyyi ba tey muy sëñ Pape Sarr bu suñu doomu bàjjan soxna xadi si rahmatullahi alayha wa radiya anha ak suñu baay abdourahman sarr rahmatullahi alayhi wa radiya anha fa tabaar ñu ngi ànd ak beneen suñu beneen mbokkum taalibe bu tudd Babacar Gueye ànd ak ba tey ki ngeen xam miin ko it ci télévision yeeg tabaarakallah muy maître Djibril War nga xam ni député la woon à l'Assemblée nationale aussi ñu ngi ànd ak moom at mu jotit nii la leen di gungee ñu ñëw fii ñu ñaan yàlla yàlla bu muy mujj at mi yàlla na at mu jot yàlla nañ ko yàlla nañ ko mane nii defe ko nii te incha allahu taala li sëñ Hadi waxoon rek radiallahu anhu bu yéene sellee bu soobee yàlla des na ko man te xam nañ lii ndigal la ko lal te yéene ji koy doxit yéene ju sell la yàlla na yàlla saxal loolu bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa fa tabaarakallaahu sëriñ baa ngi nuyuwaale ba tey mbokk mu baax ñu koy séen ci mbooloo mi muy ca Yaxya Jóob Yékini muy ca jumaa ja muy fii guddi gi seetlu nañu saa buñ ko lalee ca ña koy dundal ci lay bokk sëriñ baa ngi koy nuyu di ko ziyaara fa tabaarakallah ak ñi demee ni moom ñëpp ndax mënuñoo lim ñëpp fa tabaarakallah yàlla yàlla boole nangul bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam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 wa aalihi wa sahbihi ajmain ñu ngi julli itam ci mboolem yonent yàlla yi yàlla bind te yónni woon leen ñu doon xàll yoon wi ngir dikkuk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam fi axiri zaman yonent yooyu yépp te bokk ci ñi yàlla nose mbindaafam yu tedd yoo xam ni moo leen yónni ci àdduna dale ko ci maam aadama ba ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi ah ñuy takk seen lim ci téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeneenti junni ci ay yonent am na ci anbiya am na ci rusul ah, waaye comme que yàlla wane na ni fokk jullit bu ñëw gannaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg gëm dayoo ak garaatu ak mayu yàlla ci yonent yooyu yëpp jiitu woon alayhimu salaatu wassalaam ci jeexitu saar wii di suuratul baqara sànq rek maa ngi koy wax ci réception bi mu di amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi donte la baatu ar rasul di mufrad wala ar rasul di jamaa Euh, moo gën a yaatu ba lambaale na anbiya yi donte la ci biir anbiya yi ñëpp nekk ñu mursaluuna wala yónni wuñ leen ba yàlla tudd jeexitu fu mu leen yónnee ñu dem ci anam boo xam ni day nekk demin bu officiel bi sifatin rasmiyatin comme ni ko yàlla nettalee ba tudd ñaar fukki yonent ak juróom yoo xam ni jaar na ci seen tur nettali sax seeni dund ak xew-xew ya dund ga làmboo ñu mat ñaar fukk ak juróom seen maam cheikh alxaaj malik sax lim na leen ci téeréem yi waaye ñoo ñëpp daal ñañ ca xam ak ñi ca xamul ñu ngi leen di jox cër bi leen yàlla jox waaye nag خيرهم والأعظم منهم والأكبر منهم والأقرب إلى الله منهم هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميغا خامني نيغي ني نيغي نيغي نيتي ني كي انام بو ملني بي نيو كو سين مام شيخ الحاج مالك تورون دو شيخ سيد الحاج مالك مي موي مام كي موم دي تورون دو كي موم مامو njabootam gu tedd gi ñu toogal muy ku sant si ak ku santul si nahnu sawaun fi dalik ndax nasab yal na ko taqwalal ci lay gën a neexee jànkonteel ca kanamu yàlla ndax li yàlla wax inna akramakum inda allahi ci suratul xujuraat inna allah atqaakum inna allaha alimun xabir fattaqullaha mastataatum ak yeneen barab yu yàlla digale nit ñi ñu wuysu ko tey fonk contrat euh, ba ñu signé woon ak moom moom te mu ko ñoom doomu aadama yi ba ñu nekkee arwaax kese di nekk ko lu ashbaax ba mu ne alastu bi rabbikum ñani woon balaa ñooñu rekk ñoo texe ci kàttanu yàlla ndax yàlla dogaloon na ni ñooñu dañ ko nangul su amee ñu ko waxul itam yàlla xam du tax wallahu yaalamu wa antum la taalamun kon ña ko nangul yàlla nañ ci yàlla boole ba nga xam ni fu ñu toll daañu xam ni génnuñu ci biir nose ga yàlla nose woon ñoo ñii maam mii tëdd nag moom maam Cheikh Alxaaji Malick Si yal na yàlla yéegi ruuxam ci barsaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay wayjuram ak soxnaam yu baax yi mu di maam Roqay Njaay ak képp ku ko yàlla sarax ak maam Cheikh Al Hadji mu di maam Safiyatu Ñang ak képp ku ko yàlla sarax ak maam Cheikh Al Hadji leen ko ci njaboot gu tedd gu sell gu yiw góor ñaak jigéen ña mu di maam Yaasin Jeng ak képp ku ko yàlla sédd ci teraanga ci digganteem ak maam Cheikh Al ba ci maam Anta Sall liggéey ma nga xam ni ma nga woon foofu ñu ni moo moo doon kër ga maam Maodo daan wàcc la ko ko yàlla dénkee muy fii ministère de l'intérieur nekk ak mag ñoo xam ni ñoom ñëpp yàlla moo leen takke ñu nekk ñu yàlla digal liggéey ñoom it ñu nangu ko ci anam ba mu gën a rafete liggéey boobu mësul suuxe ba ni maam Maodo génnee jóge ci àdduna bii di jeex bu ji boromam ñàkkul ni le 27 juin la 1922 muy bésu talaata fii ci Tivaouane comme ni ko sëriñ Alioune Guèye waxee ala yawmuhu gis ngeen ni ko dudd kenn mbay alxaaju dudd kenn di nettalee ci anam boo xam ne bu daw yaram la jéggi na dayoo ci daw yaram ba mu cay tudd mom Cheikh Cheikh El Hadj Alioune gay kan moy Cheikh El Hadj Malick di netali biographie diko dessiner ci image yi gëna rafet natal yi gëna rafet yi gëna tedd yi gëna sel yi gëna a yiw yiy gën a dalal xelu ko xamni ni mën tax nañ ko melale mën na tax mu roy Cheikh El Hadj Malick ndax Cheikh El Hadj Malick tam ko ko roy roy nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom dafa roy yonent bi saai sallam à cent pour cent bàyyiwul dara ci yonent bi saai sallam waaw kon su demee ba ni alaa azimu leyla alwiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu déglu ko xerewlu la mu wax te fonk loolu yi mu ñu wax muy ndénkaane lu war la lu jaadu la ndax yàlla moo ni yonent bi saai sallam qul in kuntum tuhibbuna allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما nee na yonent bi saai sallam décrété naa jox la ndigal nga ni askanu doomu aadama ak jinneeg lépp ndax yàlla daf ko yónni ci nit ak ci jinne yàlla ne ko wax leen ni xée yéen gaa yi su fekkee ni dangeen di woote ni sopp ngeen yàlla yàlla nee na lay firndeel cofeel ga moo di man mii di jaamam te mu neex ko mu jox ma grade yi ma jox jox ma mission bi ma jox jox ma prérogative yi mu jël ci man yàlla nee na naa leen wax ni ngeen topp ma te terewul ba mu ko waxee ay mbokkam ñu ci bari dañu dëdd woon ko gannaaw sànni ko loxo bi ko yàlla ne wa andir ashirataka al aqrabin wax waxfid janaaxaka liman ittabaaka min almuminin dañu dellu gannaaw lànk ba tëdd ci suuf yàlla la soob nag ñi gëm-gëm ko ñi gëmul tam mu bàyyi leen ci seen choix personnel exclusivement personnel ba xam nag ëllëg lan mooy doon inconvénient bi ci kanamu yàlla nde yàlla lu mu digle ci lu baax wax na avantage ba ak njëriñ la ca nekk lu mu tere ci safaan wax na loraange wa ca nekk muy inconvénient yi kon yàlla rek moo mën a dimbale jaam ba jaam bi tegu ci tànk yoo xam ni ak woyu ak teg ndëggam yi ci yoon boo xam ni ah des na ko mën a yaakaaral ngërëmal yàlla ak ndimbalal yàlla ak yërmande yàlla ak njégalal yàlla donte la yàlla lu ko neex mu def waaye nag logikam moo di ni lu ko neex mu def waaye nag ci texte yi wane ne itam ku ma topp su dee lu baax loo def naa la ko fay fa man yaamal misqaala daratin xayran su dee sa faan jotam da ko gisal sa bopp sa fa man yaamal wa man yaamal misqaala daratin charran waaw su ko defee yàlla ci boppam moo dogal maam Cheikh Al Hadj ak maam yooyu yëpp àndoon ak moom topp yàlla ba jonni tey jii ba tax ñuy ñëw di déglu kàddu yi ma waxoon ne nañu ñëw ci biir kàddu yooyu la yàlla dogaloon yent yàlla muhammad sallallahu alayhi am ñu ñëw di jaayanteeg moom ca jamonoom ci suufu garab gu tedd goo gi ci ni bëgg nañu mu seedeel leen ni lépp lu ko yàlla dénk ci kàddu yu mu war a jokkalanteeg ñi nga xam ni ñooy mbindeefu yàlla yi ñoom ñoo ñiy toogoon ci keppaaram ak ci kanamam nangul nañu yonent bi saai sallam kon nag nangul nañu yàlla mu dellu jox ko in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni al ittibaa boobu di topp gi dafa nekk lu war loo xam ni nit ki waru ko woon gannaaw su ko defee ku ko def rek yàlla soppal la boppam waaye yàlla won ko ni ndax ñii di jaayanteeg yow te muy dëgg ci ñoom bu ñu dem mukk ba faw ni sa loxo rek la ñu teganteeg la ñu tegante loxo jëme ci keppaaram sa loxo féete kaw seen loxo sa loxo bi ëmb yoxo ya nga xam ni tàndal nañu ko ca suuf fekk na man itam man seen borom ma jël sama loxo yu tedd yi ëmb seen loxo yéen ñëpp ba képp koo xam ni mottali nga jaayante googi contrat boobu bàyyi boobu man nga amal affaire yow Seydina Muhammad da ngay transmettre rek sama message ak di ma la digal nga jox leen ko wax leen ko ci sama tur waaye koo xam ni nag war na jaayante googi yaa ko def sa bopp su ma la dimbalewul ba nga fàttaliku ni njuumte mën na laa dab ba mu tax laa tiit ba ngay rëng-rëngi daw dellu ci man ma ma yóbbu la ci ëttu ma yóbbu la ci leer lay nga sangu ba wecc ne maa lay sang ba nga wecc ndax ku tilim amul place kër yàlla ku tilim am te te jéemul sangu ba set amul place kër yàlla sangu gi ba set na mooy al istixfaaru wa tawbatu wa adamu rujui ila al maasi wa dunubi wal athami wal muxaalafaati allati naha allah naha naha allahu an an irtikaabiha su ko defee maam ci boppam dafa xam ni nit ñi dañu gaaw a fàtte moo taxoon moo àndoon ak maam maam Cheikh Al Hadj Rawane Ngom ak mag ñu baax ñam mu àndaloon te du dugg dara ci yaama te dugg ci biir dara ci yaama neex mag mu mel ni maam Cheikh Al Hadj du dugg ci dara te seetantalu ko di ko seet di ko wëlbati ba loolu dal xelam dana ca def ay istixaara dana ca def riyaada dana ca def euh, dana dana ca dana ca def xalawaat ñaan yàlla mu gindi ko ba teg ci yoon boo xam ni lu ko yàlla lay jëloo rek lay jël du sañ dugal ci biir ëttu yàlla bi loo xam ni tey yàlla joxu ko ca procuration kon yaakaar nañu ci anam bu wér ni yàlla baaxe na ko mu mën a woote te wooteel koo xam ni sax ku mat a wooteel la muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te dañu ni su fekkee ni dundal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dundal turam dundal li ko yàlla may ci yiw ak tedd nga ak teraanga te loolu yépp Seydina Muhammad sallallahu daf ko transféré xeetam su fekkee ni loolu am na te loolu am na incha incha allah loolu mooy li mën a jëriñ doomu aadama yépp ba tax na maam bëggul benn yoon ñu ñàkk occasion boo xam ni daañ ko dund ci at mi teddu delluwaat nañu ci suñu borom donte la tariqa bii yàlla dogal maam Cheikh Al Hadji Malick dugg ci di ci am tarbiya ruhiya tarbiya ci wàllu ruwam ak xelam ak xolam pour lépp sell mu ti tariqatu al imaami al azam al qutbi al maktum cheikhina abil abbasi ahmad abna muhammad abna salim al tijaani nga xam ni ku ko xas ba jël ba ni gëm nga ko ñu jox la charte yi nga nangu ba dugg ci biir loo ci mokkalul woon ci askar yeeg awraat yeeg salawaat yi da nga ko jéem a jàng ba mën ko te doo xëy suba ba ngoon te jéggaluwuloo yàlla ca suba sa ak ca ngoon ya te waxuloo la ilaha illallah ca suba sa ak ci ngoon ya te jàngoo salaatu ala nabi muy salaatul fatihi rawatina ca suba sa ak ci ngoon ya loolu yëpp dëppoo ak istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaran ak uzkurullaha dhikran kathiran wa sabbihuhu bukratan muy suba cuuy ya wa asilan muy ngoon ya ak marax ya te soo defee résultat bi mooy lenn yàlla daf lay jël dugal la ci biir këru kaaraangeem këru ndimbalam këru suturaam këru tedd ngaam këru teraangaam soo gisul yent bi saa sallam ndax amuloo sensu yàlla muril la xijaab bi nga gis ko itam jàppal ni yaa ngi ak moom yàlla nee na huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min adulumati ila nuuri wa kaana bi wa kaana bil muminina rahiman defe naa noonu la de taxiyatuhum nag ëllëg ci àjjana yowma yalqanahu salaam واعد لهم اجرا كريما لولو موي طريقه شيخ رضي الله تعالى عنه كوجي طالب الشيخ تي گم كو دغ تي فوي ووك فو تولو سخي لاغي ديم تي يالا نغي جيغلو يالا سبحان غون تي استغفار دي جانغ لا اله الا الله سبحان غون دي ديف تسبيحات سبحان غون دي ديف ذكر الله دال دي ديف صلاه على النبي تي يوي ييب دا فا نيك اي آية يو يالا واتي تي اي تكست يو القران الكريم سورة الصلاة على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما waaw su dee li ci des ci istixfaar ak laa ilaha illa allah faalam annahu laa ilaha illa allah wastaxfir li dambik yëpp di alquran kon maam dafa ni gaa yi da ngeen ñu war a ànda doon yoon ñëpp tënkuwaat ci buumu yàlla gi yal nañ ci yàlla dimbale mu dellu rek ci ka nga xam ne dafa ñëwoon di jaayanteeg moom mu ne ko doom jaayante nga ak koo xam ni daf lay woowaat yaag moom yëpp mook yow yëpp ngeen wëlbatiku jaayante ki mat a jaayanteel te moo di Mawlaana tabaraka wa taala ba lu ñu lu mu ñu may ëllëg ñu sant te li mu li ñu mën a yaakaar ci moom moo di yërmande ak teraanga waaye duma la jëlal benn décision ci loo xam ni euh, loxo yàlla ca la ne ca loxo yàlla la ne te moomeelam nga euh, ca moomeelam la ne di la ci di ci di ci wane ni am naa ci cellte dootoo xam na ni yàlla may na ko sellte waaye dafa nekk ku raisonnable nekk ku loyal nekk koo xam ni du wooteel boppam dara parce que yàlla bokk na ci mbaandute nga maandu sa digganteeg moom bàyyi kook la mu moom te di ko ñaan nag tey am ci moom yaakaar te bañ sax dogu ci lépp loo xam ni tey ñaan nga ko ya allah daayiratu nicmati bu ndóomóor Amad Lamine Diop dañuy yëgle seen gàmmu le 4 janvier ci teewaayu Serigne Sidi Ahmed Sy Al Amin waaw dane yubahit man ataaw min al uyuuni waaw dane bihi aynan unil naa lay